moo mën a expliquer succès wu Jolof Chicken Jolof Chicken fii ci Ndakaaru Jolof Chicken ci réew mi yëpp Touba yéen ko doon laaj ñii doon jël oto luwe wekk mu ñëw ba Ndakaaru jënd Jolof Chicken di delluwaat ba Touba loolu jeex na tey ndaxte Jolof Chicken am na ca Touba. Eh, yaakaar naa station ADK yi ngi ci dëkk bi waaye tey mu yokk ci lii eh, lii nag eh, njariñ la lu am solo yoo xam ne da koo am ci ab dëkk muy investissement. ku mel ni kii réew mu ko am danga ko war a jàpp. ndax gannaaw créé wutal ndaw ñi liggéey. ñoom la war moom mu jóg taxaw di wutal ndaw ñi liggéey. boo xoolee fii ci sama gannaaw. ñii fi ne ñëpp ñii ci ëpp ci dëkk bi lañ leen jële bi ci ci lii koñ bii nu wër bi mu fi duggee ak léegi emploi yi ñu doon ñëw di ko jéem a créé fii moom créé na Touba lu tax ñu ñëw fi Deka dafa am lu bees lu ñu naan jolof ci kën comme nañ ko defee feneen ak feneen lañu ko lañu ñëwee biir Touba def ko fi te muy lu jaadu nag lool dañoo bëgg doomu dëkk bi di liggéey te lu mel nii jolof ci kën bu amee ci gox dafa am emploi yoo xam moom lay créé ñun suñu politique sociale mooy dem ci gox defa lu mel nii ba pare jël doomu dëkk ba ñuy liggéey kon loolu mooy li nga xam ni moom la EDK mébét. waaw ñu si ëpp nag ndaw dëkk bi lañ mais jël nañ leen fii bien avant ñuy ibbi ñu yóbbu leen Dakar fii lañ leen jëlee yóbbu leen Dakar ñu former leen foofu former leen tàggat leen si liggéey bi ni muy doxee ak ni ñu bëgg liggéey bi doxee former leen si jox leen xam-xam bi war a mën a tax ñu mën a yor liggéey bi tey bi ñuy ibbi. ñu delloo si waat leen fii ci biir Touba. janoo ak marché xayra ci wetu Sékouba ak la poste Jollof Chicken une fierté bien sénégalaise. Jollof Chicken ak croustillante neex commandel rek ñu livré la. ñëpp e, di tàmbale nuyo bi ci borom dëkk bi di sëñ Mountakha Bachir xalif général des Mourides di suñu wasila suñu papa di nuyu. képp ku yeewoo ci dëkk bu tedd bii tey dañu ñëw comme ni ñu ko daan defee rek at mu jot ndax ñun ñaari bés yu am solo lañu am ci at mi ñun waa bergerie Xaadimu Rasuul mooy màggalu Poroxaan ak màggal gu mag eh, at mu jot nag dañuy ñëw ziyaare ci sëriñ bi eh, boole teeg lañuy am ànd ak suñuy xarit eh, suñu mbokk taalibe ñëw jébbal ko sëriñ bi di ñaan yàlla ñu fekke ko ay ati at te tal ko te luñ ci mën ren rek yàlla fuul ko ba ñu mën lu ko raw ndax yéene bi ak pastef bi mi ngi fi eh, eh, ci loolu nag dañuy koy sant d'abord suñuy bu ñu gërëmee yàlla julli ci yenent bi sant suñuy ñaari waajur ñi ñu meññ tàggat ñu ba tey ñu nekk ci lii ñu nekk te yaakaar ni mooy lii gën ci ñun mooy liggéeyal xaadimul rasul dañuy gërëm sëriñ Muntaxa damay wax suma suma papa am naa ni loolu moom ñëpp xam nañ sama diggante ak moom tey di gërëm njabootam tamit di gërëm njabootu sëñ Touba yëpp eh, di gërëm tamit le président de la république son excellence Macky li tax dafa am solo ndax eh, yàlla dafa def man ma nekk ku bëgg affaire jur yàgg ci lool nag nekk ci càmm gi mi wax dëgg yàlla waxuma sax man samay responsabilité administrative mais ci nim ma fekkee ci càmm gi di ma ci jàppale dima ci dimbale ba tey wax dëgg yàlla bergerie bi yegg na fu nga xam ni dañ koy sant di ko gërëm ndax jàpp na ma jàppale na ma te loolu tamit dama koy feddaliwaat ndax ku gërëmul nit doo gërëm yàlla te man yarewuñ ma nit di la taxawu di la dimbale te doo ko sant doo ko gërëm donc président moom wax dëgg yàlla rëccuwuñu lañ doon taseeg moom ndax dimbale gi ñuy dimbale ci càmm gii tey ndax bu buñ demee ba bergerie Xaadim Rasul mën tabaski jot ñuy jaay lu ëpp six mille xar ah euh, tamxarit jot ñuy jaay lu ëpp deux mille nag boobu xam ne dafa am loxo bu ci dugg te loxo bi ci gën a dugg tey mooy loxo président de la république parce que daf ñu jàppale te wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaanal te lépp lu mu sumb surtout ci dëkk bu tedd bi yàlla na ko suñu borom fay yàlla na ko ko sëñ Touba fay di ci teg honorable député Farba Ngom parce que moom tamit day ku nga xam ni ñu bëri foog nañ ni samay fonction administrative moo tax ñu xame waaye ci càmm gi lañu ñu xamante sama diggante li ko indi mooy càmm gi man ak moom mais wax dëgg yàlla ba mu jàppee ba léegi bàyyiwul daf ñu ci jàppale bu baax te ci màggal gi rek yónnee na ma ay nag ne ma dolli ko ci say nag boo demee nga jox ko sa papa ndax muy président de la république muy moom ñoom bu ñu may wax waxu sëñ Mountakha dañ naan ma sa papa donc xam nañ sama diggante ak sëriñ bi di gërëm tamit ñi ma jàppale ñëpp di ci beral loxo ña Bamba Ndiaye ndax wax dëgg yàlla buggul ma wax ko sax waaye li mu def ren man def maa yéem ndax toolam la ma dugal nee ma nag yëpp léegi naa yow da ngay dem màggal dem seeti sëriñ bi seetal loo ci bëgg yow loo joxe noonu la xam nga ni loolu yombut donc ku def loolu waaye nee naa ko nag bettuma ndax xaadimu rasul ñu la tuddee donc soo defee lii ah, da ngaa wuyu rek sa turandoo euh, di gërëm ñi ci jàpp ñëpp ndax yëf yi euh, man dama ko jàppe woon rek diggante doom ak baay ndax doom dafa war fu bàyyam wootee rek mu ànd ceeg Pastef xar tànk tuweem lu mu am mu dem jàppale bàyyam waaye léegi euh, dafa jël dimension ba nga xam ni dafa ma yéem sax ndax depuis weer a gi nii sama bergerie la fa ne ci ay bagage te ay nit jàmbur yàlla yaa xam ni xaw ma leen sax ñoo ko fay indi nii ci wàccaay màggal gi ñoo ko jàppale Omar Sow yi ngeen gis yu bëri Ah, ay nit a may jàppale may naa la camion ceeb may naa la lii may naa la lépp na nga ko def ci wàccaay màggal moo tax tey ngeen gis fii lépp mais loolu yëpp day wane rek ni loxol sëriñ bi mi ngi ci te lu waaye di def rek yéene ba na ca jiitu ndax ñun suñu yéene lii ñu def nii tey ëpp na fuuf li ñu def suñu mënoon a ubbi suñu xol bi ñu xam li ñu yéene Touba gi yéene ko sëñ Mountakha Bachir mi nga xam ni moom moo fi sëñ Touba dinañ xam ni yéene bi amul fu mu yem moo tax dañuy ñaan yàlla liñ naan yoonu murit amul tànku gannaaw tànku kanam rek la am lu ñu mën ren yàlla nañ ko tal te fekke ko te mën lu ko raw bu déwénee te màggal gi di màggal poroxaan yëpp ñu koy fekke sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te wér ñu mën ni ñuy àndeek moom ci sutura ak sag yàlla saxal ko te dooleel ñu defal ñu jàmm defal ñu sutura ndax euh, wax dëgg yàlla man kër gi ma toog tey dafa am lu mu symboliser ndax fii mooy kër sëñ Isaaxa Mbàkke sëñ Isaaxa bu sëñ Basiru moom moo jàpp ci sama loxo ñu jóge Dakar dem ba Poroxaan fekk fa sëñ Muntaxa booba nekkagul sëñ Touba ñu yendu fa ak moom am yu doon liggéey ci Poroxaan ba ngoon jot mu boole maag sëriñ bi sëriñ bi gis nii lañu fa président Macky Sall yónni woon pour ñu def ko ca Poroxaan daf ci ànd ak mbégte kontaan ci lool daal di ne ma yow nag da ñëw ma teg la loxo. moo indi sama photo boobu ñuy gis ci sama profil te benn samdi la woon ñu teg ci ay quelques jours sëñ bi nekk sëñ Touba di xalifa général des Mourides moo tax indi nag saa yu ma ñëwee Touba damay njëkk ci sëñ Isaaxa mu dalal ma bu ñu sëñ bi ubbee ma ànd ak moom dem ziyaare ko sëñ Isaaxa tamit moom. moom jàppewu ma sax taalibe su ma ñëwee sax du nangu ma toog ci suuf dañuy toog di waxtaan daf ma jàppe comme doomam ñu waxtaan di weccante xalaat eh, parce que c'est un esprit très ouvert ah il comprend énormément de chose donc moom it dama koy sant di ko gërëm di ko ñaanal tamit wér yaram ak gudd fan di ko wax bëgg nañu lool ci ni mu ci kattanu suñu borom ni mu jàppe suñu loxo boole ñu ak sëñ Muntaxa waaye ni mu ñu téye tamit bëgg nañ ci lool te wax dëgg yàlla lii ma ànd ak sama équipe yëpp waa bergerie Khadim Rassoul gis ngeen depuis trois jours ñi ngi ci dëkk bi euh, di prépare suñu ñëw bi vraiment euh, ñu wax mbay jën jiite ko euh, ak sama xarit Issa Ndoye ñëw ànd ak ñoom laat géey vraiment di fi liggéey liggéey bu mucc ay ndax li ma leen wax lépp wax dëgg yàlla bi ma ñëwee fekk naa ni noon lañ ko defee te ma déggoo ceeg tamit ak waa kër gi yëpp muy sëñ Moustahine Mbacke mi nga xam ni sëñ bi moo ma booleek moom saa yi may ñëw sëñ Cheikh Ibrahima Mbacke tamit ñoom ñëpp ku ci ne mun taxaa kan ñëpp jàpp ci vraiment ndax ñëw bi rafet ànd ak dal vraiment di di di di euh, euh, nuyu waale tamit euh, suñu yaay ah, soxna Bali mun taxaa ndax démb rek woo na ma. di ma wax ni gis na nag yiñ ko yónnee ma ne ko kooku moom yaa ko moom ndax loolu moom day lu ñu war ndax saa yi ñu ñëwee tamit daf ñuy defaral añ vraiment muy lu nga xam ni eh, mbégte gu rëy rëy la ndax wax dëgg yàlla vraiment li ñuy ñëw fii eh, saa ñu ñëwee daal dañ fiy jóge rassuré mais li ñuy rassuré na rek dafa di comme ni ma ko waxee woon ci njëlbeen ga mooy dafa am lu bëri lu daje tey ndax li ñuy def jiitu réew mi mooñ ci gën a jàppale vraiment ni mu ci jàppe am na loo xam ne boo ko waxee sax day niiru ngistal mais yàlla xam na li ñuy wax rek nañ ko yàlla fayal ba pare nag sëñ Muntaxa jàpp ñu jàpp ba nga xam ni ñun def ñu yéem ndax xalifa général di murit kenn mënut a def lu ko yéem sëñ Touba fii kenn mënut a def lu ko yéem kenn mënut a def defal ko lu ko jaaxal waaye ni mu ñu jàppe ñun moo ñu yéem te ñun lii ñuy def nii du dara lu dul Pastef ak jël suñu lépp jox ko sëñ Tuubaa rek loolu rek moo ñu tax a jóg maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp gërëm ñi ma àndal tey vraiment ñu gunge si ma di wax ni yàlla ñu yàlla may ñu teewe ko ay màggali màggal te wax dëgg yàlla lii ñuy def nii yàlla ful ko ba